الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أم ñoo ngi ñëw ci xadiisu ummu dara muy fukki jigéen ak نخمني yooyu nga يا عائشه doon ko wax seen xabaar yi borom kër waaye xam ngeen ni gisoon nañ fukki jigéen ñëpp fukkeel bi ak benn moom mooy baytul xasid bi kooku mooy ummu zara moom lañu tuddee xadis bi kon moo mujj moom mooy tëj géew moom li mu wax mooy zawji abu dara fama abu dara unaasa min xulyi udni wa malaa min shahmi adudi wa bajahani fa bajahtu ila nafsi wajadani fi ahli hunaymati bashq فجعلني في أهل سحيل وأطيس وضائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح muy wax joo xam ni moom it en day tagg jëkkëram ci jafe-jafe bu mu jóge moom ñëw ci mbaax mbaax nga xam ni jigéen ñépp loolu lañ bëgg dañoo bëgg bu ñu jógee seen kër fa ñu jëm nanu fa nekk ay buur lu ñu amul woon seen kër nañu ko am seen kër jëkkër lu ñu fa sañul woon nu ko sañ ci seen kër jëkkër loolu kenn ku nekk avancement nga bëgg kon jigéen day bëgg lu ko avancel bëgg na ku ko jox teraanga bëgg na ku ko fonk moo tax ummu zara mu ne ji abu zara fama abu zara mu ne sama jëkkër day mooy abu zara mu ndax xam ngeen abu zara wallaay ñun xamuñu ko xanaa kay yaa nuy leeral mooy kan ñu jéem a roy ci moom ñu xam abu zar ñu jéem a roy ci moom kon ñu ngi lay déglu yow umm zara mu ne unaasa min xul yi uduni mu ne abu zara day teraanga yim ma njëkk defal mooy takkal na ma ay takkaay samay nopp amul woon jaaro léegi yëngal na samay nopp ba su ma doxee ñu dégg takkaay yi ci samay nopp ndax takkaay yu ci nopp arab yi dañ ko daan def boo takkee sa nopp ay long-long ak yu mel noonu soo ko takkee foo jaar ñu ne kii kat sëyam neex na fi mu nekk neex na kon loolu aada woon ci ñoom bëgg fu ñu tollu di yëngal ay jaaro yi nopp kon moom nee na sama jëkkër daal takkal na ma ay jaaro yu wurus la ma takkal sama nopp takk na ko ay jaaro yoo xam ni wurus la muy jaaro yu seer su may dem mu yëngu su may ñëw ñu xool ma xam ni man mii kat ndeke jabari kilifa la man mii kat ndeke am naa lu ma sol te ba may jóge fi ñu kër di ñëw ci moom loolu amul woon mu ne wa mala amin chahmi adidi nee na bokk na ci sax feesal na samay përët loolu kinaaya la ci ni moom ndaw si bi mu nekkee kër baayam baayam dafa néew doole lekk bëriwul naan bëriwul kon dafa jeexoon tey ñëw na kër Abu Zar nekk na diriyànki muy wa mala amin chahmi adidi kon Abu Zar def na ma diryanke samay përëg ubbeeku na samay ans ubbeeku na tey ku ma xool dana ma xoolaat tey jigéen laa joo xam ne tey jongama la waaye diryanke la kon jigéen ñi xam ngeen ni loolu da koo bëgg walla dañu ko bëgg mu ne waa bajaxani fa bajaxtu ila nafsi nee na daal Abu Zar mooy góor gu baax Abu Zar daal daf may tagg di ma neexal di ma yëkkati du ma suufeel du ma tuutil du ma toroxal Abu Zar bokk na ci lim may woowee mooy yow sama or yow sama trésor yow sama wurus yow ndaw su rafet si yow xale bu jekk bii nee na jay na ma ba ma jayaxu wa bajaxanii fa bajaxtu ila nafsi jay na ma ba ma jayaxu ba ma yëg ni man ndeke jongoma la ci wax ak xool ak dox ak ñëw dem naa jay na maa jay ba lépp ci man damay sentir ni kenn ëppaliwu ma leen ah mbokk yi loolu baax na fi jigéen jigéen bu demee ba yëg ni boroom këram yëg na ko lu mu amul ci teraanga dana ko def lu mu mënoon dana ko def lu mu amul woon dana ko ut loo bëgg dana la ko defal moo tax yow góor fexeet sa jabar nga di ko yëkkati dee ko tagg dee ko wax yu baaxam yi mu def dee ko feeñalal taaram su solee yére feeñalal ko taaru yére bi su solee dàll feeñalal ko taaru dàll bi su takkee jaaro feeñalal ko ko su doxee feeñalal ko doxiinam lépp loo mën ci mokk pooj yow góor loolu mooy tax jigéen benn olof day wax mu ne jigéen mook xarum yar ñoo yem xarum yar loo ko gën di raay di ko tagg muy gën a màgg boo ko doon jox lekk te raayoo ko tagg ko du màgg gis nga soxna si su fekkee bu solo ba jekk nga ñëw ne ko tey soxna si toj nga fi ah non soxna si tey moom vraiment man rek la yàlla jox jabar bu dàq ci àddina wala nga ne ko soxna si xoolal sa doxin bugguma sax booy dox nga di ko doxee ci biti xoolal doxal ci biir man ni nga mel loolu moo may gaañ muy baat yoo xam ni oyof na ci wax diisul waaye lu rëy ci soxna si la ndax da koo bëgg kon loolu nee na abu dara wa bajaxani fa bajaxtu ila nafsi moom daal jay na ma ba ma jayaxu comme li olof di wax daal gars yi danañ jay ginaar ba muy mbëkke kon ummu zara dem na ba foog ni am nay béjjén di mbëgte ndax jëkkëram da koo mën ci di ko tagg naan ko yow sama trésor yow soxna su jekk ji yow neex kàddu yow neex togg yow neex nàngam nee na li gën a yéeme ci sama jëkkër muy abu zar wajadani fi ahli hunaymati bashq ni fi ahli hunaymati bashq bashq montagne la boo xam ni montagne ñi néew doole ñoo fa daan nekk ku amul ay xar walla am tuuti xar ñoo fay dem montagne boobu ñax yi day wow du tooy ndax bariwul suuf moo tax mu ne wajada nii fii ahli gunaymati bashq abu zar bi may jël si di ma takk dafa fekk ma bokk ci ñi nga xam ni seen famille bariwuñu jur amuñu fu ñu sàmmee lu dul basq ci suufu montagne yu ñàkk yi lekk amul naan amul cereeg meew la ñuy naan bu ñu paree dem góor ñi dañuy jeex jigéen ñi dañuy jeex ñun daal suñu mbir mooy màngaan fu am ñax ñu dem fu ñu campé bu yàggee ñu dem feneen kon daf maa fekkoon ma nekk baadoolo daf maa fekkoon ma nekk ku ñàkk daf ma fekkoon ma nekk ñu néew doole kon ndeke ñun kat amuñu woon doole mu ne nii fii ahli gunaymati basq nee na nag bi ñu fekkee ci loolu moom abu dar fa jaalani fii ahli suhaylin wa atiitin wa daitin wa manq ndaw si ku baax la ndax nee na jëkkëram da koo fekkoon mu nekk ci famille bu néew doole jëkkëram da koo fekkoon ñu nekk ñu ñàkk jëkkëram da koo fekkoon mu nekk ku jeex jëkkëram da koo fekkoon mu nekk ku ñaaw waaye lii lépp jëkkëram defal ko ko kon yow sama jigéen sa tuur jot na mooy sa boroom kër dee ko feeñalal teraanga yi mu la defal góor it dafa bëgg su la defalee teraanga nga tagg ko waaye yore sa ñaari mbuus lu bon lu góor gi def nga denc lu baax lu ma def nga nëbb du tax say neex góor ñu bari tayel nañ lan moo leen tayelloo jigéen ñu tayel sa jëkkër bu la xotti la yére waaye waaye dee ko sol ngir moom su la jëndalee dàll de ko sol ngir moom del puudaru maquillage sa defar ngir moom waaye sa boroom kër lu mu jënd doo ko sol balaa nga koo sol ngay dem ngénte walla céet walla ngay dem xew soo demee xew ba ñëw summi yére yi sànni bu sa jëkkër ñëwee nga teeroo ko ay dësu di xeeñ laaj di xeeñ poobar di xeeñ laurier sa jëkkër bu ñëwee doo ko sax tatagal doo ko gàttandu doo ko xaar ma ni loolu baaxul ci jigéen jigéen jógeel loo doon def même ci waañ bi nga nekkoon di tey bu sa jëkkër ñëwee dawal boo dawee akolaat ko fóon ko dalal ko na ñëw ba ci néeg bi nga toog ci wetam jox ko ndox mu dal nga doog a dem def li ngay def lii góor gi bu ko xamee ci yow lu mu seen jëndal la lu mu am indil la parce que nit it da nga koy encourager góor gi la takk moom it di def effort pour yow yow it da nga war a def plus d'effort pour moom ndax dalaa indi ci këram pour nga participer nga jàppale ko mais waroo ñëw ngir nga déstabiliser ko su jëndee ceen nga denc lu mu jënd nga denc buy génn solo déedéet loolu taxul woon mu jënd beneen bi yow xam nga ni moos bi nga nekkee seen kër moyens yi nga am tey amoo ko woon tey sa jëkkër jox na la néeg bu yaatu yaa ngi ci lal bu yaatu am nga li jigéen war a am waaye waaye xamal ni lii amoo ko woon sa kër bàyyi bul ni mukk sama liggéeyu ndey la du liggéeyu ndey wërsëgu yàlla la wërsëgu yàlla nag dañ koy sant borom bi nee na la in shakartum la azidannakum su ngeen santee ma dolli kon santal sa jëkkër ci li mu def nga sant yàlla ci li mu def waaye li mu def nga xeeb ko soo bëggee nekk sa xaritu jëkkër doo am beneen xarit jigéen buy sëy du am beneen xarit portable ba nga yoroon ba ngay nekk jànq piis ba nga yoroon ba ngay nekk jànq xale yi góor yi di la ci woo ñëpp am ko tey bu ñu la takkee bu fekkee jigéen bi bëgg sëy nga dammal piis boobu sànni ñi lay woo na doon ñu neex sa jëkkër ñi ngay waxal na doon ñu neex sa jëkkër maa ngi nettali benn anecdote sama benn xarit daf ma woo ma ñëw këram fekk dafa am lu mu wax ay jabaram jabar yi gëmuñ ko mu ne leen oustaz Sall day yorul sax seen numéro yéen jabar ne ko déedéet oustaz ni ñu mel ak moom nangam nangam mu woo ma ma ñëw mu laaj ma numéro déw ma ne ko déedéet man man yoruma ko man duma yor yore numéro jabaru jàmbur jabar yi loolu da leen jaaxal. te pourtant jabar yi samay jabar lañu suma lépp lañu waaye lan moo tax seytaane dafa mën a liggéey léegi mën naa am ci ñoom soxla woo leen kon su ma leen soxlaa jëkkëram laay seen jëkkër laay woo mu wool ma leen ma wax ak ñoom parce que tamit seytaane dañ koy daw kon ndaw si baax na baax boo xam ne mi ngi wax teraangay jëkkëram nee na sama jëkkër dama fekkoon ma néew doole lool amuñu dara ñàkk bay sàmm suñu jur ci montagne boo xamante ñax yu wow la ñuy lekk nee na nag fi ahli suhaylin wa atiqin wa daais nee na sama jëkkër léegi boole na ma ci ahlu suhayl mooy kër goo xam ne dañoo bëri ay fas arab yi kër bu bëri woon jur bëri fas rek mooy patron lañ fas yi ni ñuy ñaxalee mooy suhayl ci arab nee na léegi kër gi bëri na oto ku bëgg a dem dem foo bëgg a dem dem kër gi bëri nay naaru góor foo bëgg a dem dem doo xaar kenn ci lenn nee na wa atit kër gi ni mu baree ay fas noonu la bëree ay gëléem su gan ñëwee ñu rayal ko mu lekk ku bëgg a dem ñu yóbbu la ku am soxla ñu fajal la jur gaa ngi fee meew mi bëri na soow bëri na lekk bëri na naan bëri na kon kër gi daal kër la goo xamante ni lépp mi ngi fi dara dara manqué wul ne sama jëkkër daal góor la goo xam ni dëgg dëgg dëgg ku tabe la waaye dëgg dëgg ku baax la lekk gi day def naan gi day def jur gaa ngi dara mankel nee na fa indahu aqulu jëkkër li ci gën a neex mooy su may wax duma toroxal su may wax ci moom it kenn du ma toroxal jigéen buggul ku koy toroxal buggul ku koy jànni buggul ku koy gëdd buggul ku koy yuuxu moo tax mu ne danaa wax kenn du ma toroxal wa arkudu a atasabbah danaa tëdd nelaw ba yoor yor ma yeewu jaam yaa ngi fi ñi may liggéeyal a ngi fi ñépp ngi fi kon aw ma benn benn benn problème kon ci résumé mbokk yi mooy Abu Zar góor gu baax la nee na wa ashrabu fa ataqammax nee na danaa naan la may naan day def njar maa ngi nii jus yaa ngi lekk gaa ngi nii naan baa ngi nii dara dara manqué wul damay naan ba gunduxle damay lekk ba sànni lekk kër gi lekk am na naan am na dara manqué wul kon mbokk yi kooku moom mooy abu zara abu zara moomu ne ko góor ñu rey waaye ummu zar yi yéen jigéen tamit war ngeen koo roy wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh